la bokkoon Singapour Singapour Singapour Singapour ñoom Singapour c'est un peu particulier parce que Singapour. Monaco Singapour ah, Monaco moom Monaco moom moom bi moom Monaco ah, mi muy am man maa nekk à l'origine de Monaco. mais Singapour moom dama ñun man en tant que procureur euh, je ne suis pas partie prenante. parce que boobu dossier bi mu ngi nekk entre les mains de la commission des juges la commission d'instruction. ci bi dossier bi nee foofu lañ commencé di wax le compte de Singapour mais compte de Singapour il faut que ma préciser leen à ce jour kenn mënul kenn mënul wax ne compte bi am na wala compte bi amul à ce jour amul kenn ku mën a toog ne compte bi am na walla compte bi amul ndax ce qui s'est passé mooy que juge dañu leen bi ñu bi ñu jotee l' information par par le biais de Albouri Ndaw a parlé a beaucoup parlé de lui Albouri Ndaw. mooy kan sax Albouri Ndaw moom lañ nommé euh, kii euh, comment dire moom lañ confié woon la gestion provisoire euh, de Deep Wood. ok d' accord. waaw Albouri Ndaw. et donc parce que par le biais de Alioune Albouri Ndaw que juge dans juge yi am information boobu léegi bi ñu ko amee dañuy def ce qu'on appelle une commission rogatoire internationale. avoir ak adressé ko euh, waa dëkk bi. Singapour Singapour. outil judiciaire Singapour pour que ñu vérifier leen compte bi léegi ñu envoyé ko parce suñ ko suñ ko defaree man nañ ko jox moo envoyé ko ministre de moom mu envoyé ko affaires étrangères ñu envoyé ko dëkk bi dëkk bi mu war a dem Singapour wala beneen dëkk léegi bi ñu toogee ay quelque boobu on est en plein procès carrément ah Antoine Diome me dit président. daf ko bëgg a yónni mu dem je sais que qu'est-ce qu'il a fait yow li ma comprendre mooy substitut bi nga àndaloon moo la ëpp gën a sax am ay information ci li nga doon li nga doon ah non non non no non parce que moo gënoon jege waa nguur waaw moo gën a jege nguur gi mais man j'avais dama ma sama kon est que nekkul woon benn kuñ taf sa wet pour mu lay surveiller de près waaw loolu de man du ma ko weddi moom ah ben je demande c' est une question. est ce que tapuñu ko sa wet pour muy dem. fii lañ toll ko weddi loolu ko weddi parce que am na ay euh, soupçons yu ñu amoon ci yow ah, yu mel ni da nga jege waa PDS wala da ngeen doon gisante ci suuf wala yu mel noonu daal. Euh, du ma weddi ne que moom il était en contact ak Macky Macky Sall parce que xam na Macky depuis longtemps avant ñu dem fii et que Macky Sall moo ko moo ko fa nommé et que il a en contact ak Macky et très certainement i lui rendait compte xam. ça c'est sûr. après mun la président da ko bëgg a yónni. léegi mu ñëw ne ma président da ko bëgg a yónni mu dem vérifier. ban président à Singa Macky Sall bi. man affaire bi suñu continuer damay gën a réer parce dafay jaxasoo jaxasoo te temps bi dafa. temps bi dafa gàtt temps bi dafa gàtt il faut qu'on accélère il faut qu'on accélère. d'autres questions c'est euh, en tant que. li ma lay wax nii c'est tellement important il fallait que bàyyi ma ma expliquer parce que ça ça te crée des sentiments de. non pas sentiment parce que je donne je donne mon information. boobu ngay tàmbalee jaxasoo waaw léegi. lui-même il est venu me dire que le président veut que moom mu dem defi vérifier euh, euh, kii bi. Singapour contre kii bi non pas quoi le contre non non euh, kii. DPI wóor. non commission rogatoire internationale. waaw. mais y a pas de problème. parce que man avant su doon voyagé man maa ko doon defal suy voyagé maa ko doon defal euh, tous les tout toute la paperasserie et quand il vient que c'est il me dit c'est présent mais léegi moom il est allé c'est la présidence qui lui a fait tous les mu dem ba mu demee quelques jours après il m'appelle le même pour ma dire que il a rencontré le procureur général de Singapour mu yëgal ko ne ko parce que xam nga ñun on a demandé la coopération sur la coopération judiciaire internationale sur la base de la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale. léegi mu ne procureur général bu Singapour dafa ne ko convention boobu dafa prévoir que chaque pays signataire dafay nommer un point focal. d'accord une autorité judiciaire boo xam ne coopération judiciaire bi ci ci ci loxo boobu ci loxoom lay jaar. d'accord. léegi mu ne ko nag bi ma vérif mu na nag bi mu vérifié au niveau du siège de l'ONU il a constaté que le Sénégal n'a pas nommé un point focal et que par conséquent ñoom du mën a coopérer avec l'État du Sénégal. d'accord donc affaire bi foofu la yem Antoine appelé pour me dire et donc man li muy waaj a ñëw en profité pour saisir euh, Sidiki Kaba. l'informer quoi ci loolu situation bi le blocage boobu ñu am li mu ci doon wut mooy moom mu saisir son son son homologue des affaires étrangères mhm. comme ça rapidement ñu mën a désigner un point focal comme mhm. ça